allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen ziyaar ziyaar bu kawe ci weeru koor gi nga xam ne mooy shahru ramadan ak it am ko ci ndeem soob na borom bi loolu mooy shahru ramadan li nga xam ne yàlla nee na unzila fihi alquran ci lañ wàcc alquran hudan linnaasi mu nekk njubum nit ñi weer la woo xam ne ci la ñuy ngir def yu baree bari yoo xam ne jàppale nañ ne yii yu baax la te yuy gërëm loo borom la weer la woo xam ne yàlla nee na maa ko moom te maa koy fayal sama bopp dikk na ci xadis yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mépp mbooloo moo xam ne dañuy dajaloo ci ab barab di fa jàngalante seen diine ak alxuraanu karim ak di xamalante lislaam ak yi ni mel mbooloo moomee wàcc ci ñoom li nga xam ne mooy di yërmande te malaaka yi danañ leen yiir te ak dal dana wàcc ci seen biir yàlla nañu ko yàlla defal moo tax ñu tàmmoon ñu tànnoon weeru koor bu dikkee liñ ci man ci bis yëpp rek ñu wéyal ko ci ay waxtaan yoo xam ne dana mën a jariñ aji wax ji mën a jariñ ñi nga xam ne dañoo teew ci barab bi waaye mën a jariñ aji teewlu ji ci li nga xam ne mooy jumtuwaay yi nga xam ne ci lañ koy jàllalee waaye sax mu mën a jariñ insha allahu taala yeneen génération yoo xam ne ñëwaguñ wala mu mën a xamal yeneen génération yoo xam ne ñëwagul ne ñi leen fi jiitu woon kat ñoom kat daan nañ jéemantu ci lu baax loolu lépp ay njariñ la yoo xam ne yàlla nañu ko yàlla defal ndax bari waa naka di ci waxtaan di ko xeeb doo ko enregistré xëy na sax ña ko bari trop waaye jamono dana ñëw ñu baree baree baree bari danañ daw jëm ca ndax mën naa mujj nekk lu tumuraanke wala lu ñu soxla lool tey nag thème bi nga xam ne moom lañ tànn ngir waxtaane ci thème la boo xam ne mënta ñàkk ci dundu jullit ndax mooy tax nit ki nite maanaam li nga xam ne mooy assurance doomu aadama bi nga xam ne mooy tax du jàdd du jàll du dugg ci lu mu war dugg ba noppi dana yar ba noppi dana tax mu mën a am jikko yu baree baree bari yoo xam ne moom la ñuy sàkku ci moom loolu mooy ferme fegu nag dafay xaw a nuroo ak li nga xam ne mooy zuhd zuhd moom mooy nga dëddu àdduna ba lépp loo xam ne nekk na ci àdduna bi <coughs> même bu daganoon sax waaye nekk lu la amal njariñ loo xam ne xëy na boo koy jëfandikoo day tax nga daw jëm ci topp sa bànneex wala sa bakkan yooyu danga koy bàyyi ngir yàlla nga xam ne looy bëgg lu nekk rek danga koy bëgg ngir yàlla waaye li ngay bàyyi it ngir yàlla tax nga koy bàyyi waaye nag bu fekkee ne fegu nag moom mooy lépp loo xam ne lu xaraam la rek nga fexe ba terewu bañ a daw jëm ca sama borom subhaanahu taala nee na ci suuratu nuur wal yastaafifi alladina laa yajiduuna nikaaxan xatta yugniyahum allah min fadli yàlla mi ngi wax ci benn fegu fegu ci wàllu pëy fegu ci wàllu mooy yàlla ci entre góor ak jigéen mu ne gaa ñi nga xam ne amuñu lu ñu mën a dencee soxna nañu fegu fegu ba keroog yàlla fe ba keroog yàlla di leen dimbalee lenn ci wërsëgam loo xam ne danañ ca mën a dencee soxna maanaam ñi nga xam ne mënu amuñu lu ñu mën a dencee soxna wala mënuñu ko wala moo xam lu tax mënuñu ko loolee bu mu leen yóbbu bu mu leen yóbbee bu dee si jamonoy tey yi ñuy taxawaalu bu dee góor ñi di wut ay xarit yu jigéen bu dee jigéen ñi di wut ay xarit yu góor bu mu leen yóbbee loolu maanaam bu mu yeggal ñoom foofu yi waaw bu mu yeggal ñoom foofu yi waaye nañu fegu nañu téye seen bopp téye suñ bopp bi nag yàlla yonent bi salaa salaam jàngal nañu ko ndax nee na yaa maachara shubaani yaa maachara shabaabi man istataa minkumul baata fal yatasawaj yéen waxambaane yi ko lu mu dencee soxna Ah, mm, mm, ku am lu mu dencee soxla na denc soxla fa man lam yastati fa alayhi bi sawmi waaye bu ko mënut nay woor ndax woor gi kat moo gën a mën a tax mu mucc ba du def ak jàdd mu mucc ba kon <clears throat> loolu afaaf la bu ñu nee al iffatu nag mooy euh, taxawal al al ak fegu maanaam saa bu nit ki euh, appliqué li nga xam moo lay afaaf rek bu boobaa nag mooy dañ naan kii kat maanaam afiif la euh, kon danañu afaaf muy jëmmi fegu rek danañu al ifatu muy fegu wéwén bi ci boppam kon fegu ci lan fegu walis lépp loo xam ne lu daganul la ci aw làmmiñ bu wax lu xaraam lu mel na jëw lu mel na rambaaj lu mel na fen waaye niki noonu na fegu ci gisam bu mu xool lu dul li dagan ci moom bu mu xool mukk jëm ci loo xam ne merum yàlla def cay nekk waaye niki noonu it mu fegu ci li nga xam ne mooy am pëyam ba lépp loo xam ne daganu ko bu mu dox di ci jëm am na ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bépp jaam ci ay maanaam bépp euh, cëri doomu aadama yépp yonent bi ne cëri doomu aadama yépp day hmm, yàlla bindal na leen seen cër ci njaalo maanaam mooy dëppoog fegu daan ne ay loxo njaaloom mooy jàpp lu mu wërta jàpp wala téye lu mu wërta téye wala fëkk lu mu wërta fëkk wala jël lu mu wërta jël waaye bu fekkee ne bët yi njaaloom mooy xool lu xaraam lañ koy tere bu dee bët yi xool lu xaraam bu dee dox bu dee bu dee tànk yi dox jëm fu xaraam bu dee gémmiñ di lekk lu mënta lekk bu dee tànk yi mu ne mooy dox noonu la ko toppee ba cëri doomu aadama yi juróom-ñaar yëpp man waaye mu ne li nga xam ne mooy dëggal lool yi lépp ne kii kat dëgg dëgg am jaalakat la mooy pëyam kon nit ki bu fekkee ne téye na cëram yooyu yëpp walis lépp lu xaraam kon boobaa dañ naan kii ku fegu la ku fegu la mu des li nga xam moo lay sàmm muy alwaraam waraam mooy lépp loo xam ne dem nga ba koy def rek nga settantal ko ci yàlla xool ba xam lii may def doonte lu dagan la lu dagan la maanaam misaal tey jii ñu ne la dañ laa woo ci ab jotaay nga teew lépp lu fi nekk dagan na la waaye yaa ngi settantal ba xam alal ji lew naag ba xam lii boolewuñ ci lu ñuy tere yi ni mel nga xam ne lépp looy def rek da nga ko seetantal seetantal ko seetantal ko ba mu leer nga doog koo def mooy sàmmwante kon buñ mooy li xaraam li ñu xam lépp bu la ko kenn def noonu moom fegu nag jikkoy ab jullit la koy jaamukatu yàlla la koy aj gëm ji la waaye jikko la joo xam ne bokk na ci jikko yi gën a gën a gën a kawe jëmmi fegu dafa am loo xam ne làmboo na ko dafa làmboo ak muñ dafa làmboo ak góorgóorlu dafa làmboo tamit li nga xam ne mooy sàkku tuyaaba ak tamit fugluwante ak bakkan bi ni mu làmbeek ak muñ mooy mboolem li nga xam ne moom nañ la daan nañ ca fegu boo xoolee lu bakkan bëgg la lu bakkan bëgg la loo xam ne buñ la ko teree rek terewul ba bul def lii mooy loolu yi bakkan comme que bëgg bakkan bëgg na ko nag lay tax dëgg doo ko def mooy ak muñ bu baax ak góor góorlu góorgóorlu jaayanteeg sa bakkan comme ni nga xamee ne jamonoy tey jii xew na lool te tasaaroo lool xaritoo entre góor ak jigéen waaye sax duñu yem ci xaritoo xaritoo ko waaye dañuy mujj sax mel na yaari way dencante ngay ndaw di waxambaane bu góor waaye nga jaayante ak sa bakkan ba ne lii lépp man du ma ko def du ma ca tàbbi du ma ca daw jëm loolu yi ak fegu la loolu yi ak fegu la kon fexe ba tënk sa bakkan lool sa bakkan ci lépp loo xam ne ay caaxaan la nga bañ daw jëm ca kon jëm mi fegu ba tey day tegtale ne kii borom kàttan la waaye tamit ku am maîtrise la waaye tamit ku am contrôle la ci jëmmi boppam fegu ki koy def dëgg dëgg mooy jàmbaar ju am kàttan waaye ku mën a euh, supporter ay mbir waaye tamit ku mën a contrôler jëmmi boppam ci jëmmi fegu gii nag ci la nit ñi di jaar ba am li nga xam ne mooy tax suñuy njaboot mën a am lu ñuy wax saw euh, sawnul usra mooy jëmmi li ñuy wax entretien li ñuy wax entretien mooy entretien mooy nga yor mbir mu baax nga sàmm ko ba du yàqu wala maintenir wala nga yor mbir mu baax nga koy toppatoo di ko toppatoo ba du yàqu moo xam ab machine la wala kër la wala ab oto la nga di ko maintenir maintenance li nga xam ne mooy maintenir njaboot gi mooy fegu ndax boo fegoo yàlla fekk sa njaboot boo fegoo yàlla fekk sa njaboot dinañ ci dikk insha allahu taala fegu mooy tax nit ki fegu mooy tax yàlla da koy dimbale ci ak njabootam ñoom it dañuy fegu dañ taxawaalu dañ mooy yàlla duñ jàdd duñ farantu duñ jël alali jàmbur parce que seen waajur dafa fegu duñ def dara loo xam ne bànneex dong la dara loo xam ne ay caaxaan la lu mel na njaaloo ya ca jëm yooyu yëpp dañ koy moytu fegu mooy tax nit ki jikkoom day gën di rafet waxtu wu maanaam ñàkk fegu nag mooy màndargaam jikko ju mooy màndargaam jikko mooy màndargaam ñàkk kersa te aji fegu ji dana yàlla dana ko taw féexi la dana am bànneex bu rëy ci ab xolam ci kenn du ko mën a xas ci kenn du ko mën a ayibal nit lu ñu làmbatu làmbatu ci moom ngir yàqu deram duñu ko mën parce que kookee dafa fem mooy mooy tax nit ki timit mën a gañe bakkanam ba du dugg ci ay caaxaan wala yoo xam ne bànneex dong la waaye tamit jëmmi fegu it mooy tax nit ki mën a gañe ay bànneexam waaye mooy taxit mu mën a téye bakkanam noot ko jëng ko ba du daw jëm ci lenn lu dul loo xam ne lu gërëm loo yàlla la kon fegu bokk na ci jikko yi nga xam ne ñoo jikko yi gën a sell yi gën a tedd ana yan ñoo ciy dimbalewaate bokk na ci yi nga xam ne nag ñoo ciy dimbalewaate mooy moytu ndax jëm bi fegu ci boppam mm, maanaam ak moytu la ak moytu la ngir bañ a tàbbi ci loo xam ne lu xaraam la euh, maanaam bu dee jamonoy tey dañuy wax ne jaxasoo góor ak jigéen bu fekkee ne dafa jëm ci euh, entre relation bokk na ci li tax nit ki mën a fegu mooy jaxasoo maanaam une manière générale jaxasoo ak aw nit wu bari dong day tax doo fegu ci yeneen i yëf da da ndax jaxasoo nit ñi dana tax nga jëw kon dana tax dana la teree fegu ci saw làmmiñ jaxasoo nit ñi jaxasoo gu ëpp dana la teree mën a fegu ci say bët ndax jamono bu ne da nga xool lu xaraam jaxasoog nit ñi jaxasoo gu ëpp dana tax léeg-léeg mën ngaa dugg ci ràmbaaj wala jëw wala wax lu dul dëgg waaye góor ak jigéen tamit niki noonu yi seenu jaxasoo maam mi jaxasoo gu ëpp gi rekk ñàkk fegu la maanaam góor ak jigéen waruñoo bokk benn jotaay toogandoo jàkkaarandoo seeni xar kanam su ko defee yow mu góor ki ngay gis léppam li nga xam ne moo jàkkaarlook moom muy gis sa lépp misaal nga toog toogin boo xam ne ku jigéen ki toog jàkkaarlook yow yaramam yëpp muy ab dëndam ak xar kanamam yëpp mi ngi jàkkaarloog yow lu dul loo xam ne lu mënta ñàkk la loolu yi dañ maanaam du fekk dañ koy tere lu dul loo xam ne lu mënta ñàkk la lu mel ne jotaayu tukki bokk oto bu xat ngeen toogandoo jàkkaarloo walla dajee ci ab barab wala lu mel ne jotaayu sàkku xam-xam boo xam ne mënta wala léeg-léeg jotaayu kiy jàng ak ki koy jàngal waaye bokk na ci li nga xam ne mooy mën a maye ak fegu mag ñi dañ ko daan wax dañ daan wax jigéen bu leen taxawandoo jigéen maanaam góor ak jigéen waruñoo taxawandoo waruñoo taxawandoo taxawandoo gi nag waxuñu kii nekk fii kii nekk fële waaye ngeen sësandoo taxawandoo dañ ne jigéen bu taxawee toogal bu toogee taxawal bu leen dend tëdd yooyu dees koy moytu dees koy moytu kon jëmmi fegu lu mata bàyyi xel la ndax képp ku feguwul mën naa tàbbi ci loo xam ne lu xaraam la mën naa tàbbi ci loo xam ne lu ñuy tere la kon fegu moo gën ñàkk fegu jëmmi fegu gi yee ko mu jóg lekk moytu moytu loolu bala moo tuuru pend moytu loolu bala moo tuuru hmm. kon fegu mooy may nit jikko yu kawe jikko yu rafet mooy taxit société bi ci boppam euh, mën na defaru lislaam nag ci boppam moom moo teg ay tërëlin yoo xam ne da ko gàcc jëmale ci doomu aadama yi waaye rawatina ñeel képp koo xam ne dafa wax ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah lislaam ci boppam moo teg ay tëralin ngir jëng bakkani doomu aadama yi ba seen bakkat ak seen bànneex du leen xëcc mukk jëmale leen ci alkaane wala mu xëcc leen benn yoon jëmale leen ci ay jikko yu ñaaw wala ay musiba wala ay safaan wala da leen di sàmm ngir nit ñi dañ mas a jëm mukk ci lii nga xam ne mooy dem ba nit ki nekk koo xam ne day yàqu ci ab sociétéem nekk koo xam ne gàcce daf koy xaw a rey ngir ne tàbbi na ci ay yëf yu baree bari lislaam ci boppam day aar doomu aadama ngir moytu mu bañ a nekk koo xam ne day dem a dem ba tëju moo koy gënal génn wéet moo koy gënal jaxasoo te dara waralu ko lu dul ay mbonte yoo xam ne tàbbi na ca dem ba nekk koo xam ne lëndëm moo koy gënal guddi waaye dem ba nekk koo xam ne du mën a jaxasoog doomu aadama yi ngir ne am na lu yàqu ci moom loo xam ne dee sax moo ko gënal dund moo tax lislaam jamono bu ne day dikk ngir di woote woo si jikko yi nga xam ne ñooy jikko yi gën a rafet jikko yi nga xam ne yi gën a mag yi gën a baax moo tax doomu aadama bi ñu koy tere topp lépp loo xam ne bànneex la maanaam ku bëgg bànneex danga koy jaarale ci yoon wu dagan bu dee lekk am na lu dagan am na lu xaraam lekkal li dagan te bàyyi lu xaraam lekkal li dagan te bàyyi lu xaraam waaye bu fekkee ne dem si ay barab la it am na barab yu yuñ la may ak yuñ la mayit demal fañ la may te bàyyi fañ la tere niki noonu it ci mbir yi jaxasoo it dañ laa tere nga takk soxna teral ko mu teral la kon jëlal li dagan te bàyyi li nga xam ne mooy li xaraam mboolem jikko yi nga xam ne nag jikko la yoo xam ne jikkoy euh, société bu yàqu la wala seytaane moo ko def ci doomu aadama yi ba ñu mujj melowoo ko doomu aadama bi ci boppam war na di ko moytu waaye rawatina bu dee ab jullit gis koo xam ne sax atum ren mi daa sawar lool ci jaamu yàlla bakkanam bëgg lool lu baax waaye atum déwén wala mu sàggan lool ma rawatina ci jeunesse bi da ngay gis koo xam ne ren lim bëgg mooy jàkka ji di naafila di sellal di yor kurus di jàng alxuraan waaye déwén dem ci jàkka ja ak ku ko rey lay yemale wal iyaazu billaah wala nga gis koo xam ne daaw da doon farlu ci jàkka ji di góor góorgóorlu lool waaye déwén benn yoon ñaari yoon ñett yoon lay dem ci jàkka ji waaye nit ki noonu it ngay gis koo xam ne da doon fegu di sàmmwante muy gone gu góor du jaxasoo gone gu jigéen toujours bu ko gone gu jigéen jege muy moytu ngir xam li nga xam ne ëllëg mën na caa tàbb waaye nga jekki-jekki gis mu nekk koo xam ne ku soppiku la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan wax naan allahuma yaa muqallibal quluubi thabbit qalbi ala imaanika yàlla yow mi nga xam ne yaay aji wëlbati xoli jaam yi maa ngi lay ñaan yàlla na nga saxal sama xol ci gëm la bañ ko daan laaj naan yow mi nga xam ne yow la yàlla yónni yow mi nga gë mi nga gëmee ba noppi nan ngay ñaanatee yàlla mu li la gëm wala mu saxal sa xol ci gëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xolub doomu aadama yi day wëlbatiku ci kéemtaani suñu borom dane xol yépp mu ngi ci diggante ñaari baaraam yi yàlla suñu borom subhaanahu wa taala doomu aadama bi nag ci li nga xam ne mooy nature bi ko yàlla bindee saa boo xamee ne bari na ay soppiku di di di di bëgg lu baax wala léeg-léeg nga dañ kumpa tey nga nekk koo xam ne dangay dangay dangay maanaam da ngay dañ kumpa dañ kumpa mooy xem comme li xew léegi li xew léegi nga xam ne euh, misaal ñu bari ñu jóge ci daara ja buñ dikkee fu mel ne Amérique gi nga xam ne lu baree bari xamuñu ko dañ koy bëgg dañ kumpa ngir xam ko tàmbalee ko ci téléphone yi ñuy yor nga xam ne dara du du leen maanaam lépp loo xam ne dañ ne lu xew la rek ñoom danañ danañ ca danañ ca nekk danañ ca nekk danañ essayer lépp gone gu am fukki at ak juróom tàmbali di am xarit bu jigéen di def loolu ñu naan génn wala bu njëkk ñu ko daan wax gérer am sa am sas ndaw di wax ak moom ci ci suuf def ak moom ay ñetti at bàyyi ko jël keneen dégg nga te gone gu góor guy guy door a jóge ci daara ja miinul yoonu yooyu bu ko tàmmee day jafe lool mu bàyyi ko waaye bi ci rawati sax nag mooy gone gu jigéen gone gu jigéen ñëpp war a fiir ci seen bopp waaye gone gu jigéen moom dafa war a fiir ci boppam fiir goo xam ne amul dara lu muy mayee ci boppam niki noonu gone yu jigéen yi tamit ñaare buñ demee ba tàmbalee ràññiku nekk si yor yenn at yi lu mel na fukki at ak juróom jëm fukki at ak juróom-ñett dañuy maanaam dañuy toll si jamono boo xam ne day metti lool foofu la ak yàqute di tàmbalee ñaare bu leen seen moroomi gone yu góor yi gisee dañuy tàmbali di leen xelbet tàmbali di leen di leen bëgg bu ñu amul ci ñoom benn accès lañuy tàmbali mooy xoolanteeg ñoom bu ñu dee dajee ci ay barab ba miinantey xar kanam di di di di lakk saatoog yi ni mel jekki-jekki dégg nga jox ma sa numéro téléphone jox la importance mel na lu lay nuyu di la jox yitte jox ma sa numéro téléphone tàmbalee bindante tàmbalee waxtaan te gone gu góor jigéen goo xam ne gone la maanaam fa muy gën a doyee waar mooy bu fekkee ne dafa jóge ñu mel nañu jóge ci daara internat yeeg yi di mel ñaare bis bu buñ njëkkee dégg ku ne leen bëgg naa la dañuy mel na ku dof duñ ko mën a contrôler te ndax day nekk baat bu neex ci ñoom baat bu neex ci ñoom boo xam day mel na dañoo jëlee dara ci toqitu àjjana dugal ko seen xol baat lay doon bu neex ci ñoom boo xam ne day rëy ci ñoom dañ ko mën a àttan moo tax ku leen ma njëkk a wax baatub dama leen a napp wala nàngam dañuy mel na luy rey seen bopp duñ ko mën a contrôler moo tax foofu it ak yeewu war na fi ci parent yi mooy di bàyyi xel seeni tasarufaati doom ni ñuy soppi ko ak ni ñuy biser ak ni nga xamee ne noonu la ñuy defalee seen emplois de temps ndax jamono dafa doy waar trop waaye war na ci nit lu mu tuuti tuuti muy moom mooy ki njëkk a war ngir fegu ci boppam fegu nag mooy sàmm sa bopp yaay njëkk a taxaw ngir ne damay sàmm sama bopp yaay njëkk a taxaw ngir ne damay protéger sama bopp yaay njëkk a taxaw ngir ne maam ndax fegu mooy bëgg sa bopp dëgg dëgg bëgg sa bopp mooy fegu ba bi ci lenn loo xam ne lu neexul yàlla la suñu borom subhaanahu wa taala doomu aadama nag bu fekkee ne day day bari lu muy def ay yu sew sewaan ay bàkkaar yu ndaw di ko xeeb loolu lii nag day day jeexantal ci moom di jeexantal ci moom day dem ba mu yàgg mu tàmm ko te bépp bàkkaar bu rëy ci bàkkaar bu ndaw la tàmbalee woon maanaam taxiwante bii ngay def nii ëllëg mooy jur waxtaan ëllëg mooy jur leneen li waykat ba ne woon xale bu jigéen bi danga dajeeg moom dong daal di muñ nga nuyu ko mu nuyu la ngeen joxante rendez-vous ngeen waxtaan fa kalaama sun fa ibtisaamatun fa kalaamun fa suma suma ibtisaamatun ngeen waxtaan ginnaaw ngeen muñ ginnaaw ngeen joxante rendez-vous ginnaaw ngeen dajee bu ngeen dajee nag lu ne mën na faa xew loolu dañu ko daan jàngal ci daara ji loolu mooy fiiraange mooy nit ki léeg-léeg li nga xam ne mooy tax nga mën a sàmm sa bopp loolu kenn du la ko defal yow rek yaa ko mën a defal sa bopp bakkanu doomu aadama nag dafa mën a xiirtale ci lu bon lu bon loolu yi nag ngay fexe ba su la ko sa bakkan digalee te lu bon lu bari li la sa bakkan di digalit day neex lool day nekk bànneex day nekk loo xam ne danga koy bëgg xadiis a ngi nii dañoo jële ci abdullahi ibnu amr mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ni ñeent a ngi nii yoo xam ne bu nekkee ci yow amatul maanaam garaawatul li nga weesu ci àdduna garaawatul ñeent a ngi nii yoo xam ne bu nekkee ci yow sa passé garaawatul amatul problème maanaam jàppal ne daal sa passé li nga weesu lépp yàlla mën naa am jéggal na la ko ñeent yooyu yu mat a bàyyi xel yoo xam ne ku mu nekk ci yow rek jàppal ne yow ku baax nga koo xam ne amoo paase bu bon wala boo ko amoon it yàlla jéggal na la ko bi si njëkk mooy matal kóllëre matal kóllëre matal kóllëre matal kóolute wala wattu kóolute nit ki la wóolu nga bañ koo wor nit ki la wóolu nga bañ koo wor moo xam sa mbokk la moo xam sa dëkkandoo la moo xam sa jege ñaale ña moo xam ki nga bokkal lu yëpp néeg la ki la wóolu bu ko war a mukk wala ki nga bokkal liggéey jamono yi ñu toll ab wore lu am la te wore day loo xam ne nit ki bu woree maanaam ndax bañ a wore fegu la bañ a wor kenn fegu la te nit ki en général wor bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne euh, yàlla du ko xaare ba al ba yowmal xiyaam dafa am bàkkaar yoo xam ne yàlla du ko xaare ba yowmal xiyaam fii la la ko yàlla di fayee fii la la ko yàlla di fayee maanaam bu fekkee ne yow mii ku am kóolute nga koo xam ne doo war kenn te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee bokk na ci màndargay naaféq koo xam ne soo ko wóoloo mu wor la waaw soo ko wóoloo mu wor la bokk na ci màndargay naaféq waaye ñaareel bi ci nga xam ne bu nekkee ci yow li weesu ci sa àdduna garaawatul mooy koo xam ne buy waxtaan dëgg lay wax waxkatu dëgg wa sidqu xadiisin koo xam ne li muy wax lépp dëgg la maanaam du fen bañ a bari ay fen xam nga euh, wax maanaam nit dafa war a dafa war a bëgg dafa war a ñeme dëgg yàlla mi ngi tagg ci julli ñi ci alxuraan ci ñoo xam ne watawaasaw bil xaq dañuy dénkante dëgg watawaasaw bi sabri waaye dañuy muñalante yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na maa ngi leen di dénk ngeen nekk ay niti dëgg ndax di wax dëgg day tax day tax xëj dëgg ci boppam dalay jàpp jëmale la ci lu baax lu baax nag nit ki bu dee def lu baax lu baax loolee daf koy xëcc jëmale ko ci li nga xam ne mooy àjjana aleykum bi sadaqi maa ngi leen di dénk dëgg ndax dëgg dalay xëcc jëmale la ci lu baax lu baax nag dalay xëcc jëmale la ci li nga xam ne mooy àjjana mu ne nit ki nag dana nekk di wax wax lu dëgg di wax wax lu dëgg ba mujj nekk ci ñi nga xam ne ñooy way dëgg yi ko yàlla boolee ci way dëgg yi nag ñooñee ëllëg ñooy ñi am daraja yi gën a kawe ci àjjana moo tax ma ulaayika alladina anama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa shuhadaai wa saalixina wa xasna ulaayika rafiqan ñi nga xam ne yàlla ñoom la gën a xéewalee ay xéewal yu rëy bo maa ngi leen di mooy tandikuloo fenn ndax fenn day xëcc nit ki jëmale ko ci lu bon lu bon day xëcc nit ki jëmale ko ci safara te nit ki dana fen fenn di fen fenn ba mu jigi yàlla boole ko ci fenkat ya buñ ko boolee ci fenkat nag bokk ci ñi nga xam ne ñoom euh, maanaam dañuy dem dañuy dem safara wal iyaazu billah kon si ñeent yi nga xam ne ku mu nekk ci moom sa passé garaawul wa xusnu xaliqa mooy rafet jikko ndeysaan rafet jikko àdduna bi yépp rafet jikko mooy li ci gën waaw rafet jikko jikko ju rafet yàlla nañu ko yàlla defal waaw rafet jikko yàlla nañu ko yàlla defal waaw mooy mooy koo xam ne léppam lu baax lay doon day nekk nit ko positif koo xam ne xar kanamam day belli buy wax ak yow wax ji day yiw buy jëflante yow jëflante bi day jekk du wax di la gëdd day fonk waajuram day fonk ay mbokkam day fonk ay dëkkandoom day mën a jéggale day mën a jëllale day mën a baale day mën a muñ day mën a muñale day mën a yërëme yooyu yépp ci màndargay jikko yu rafet la ci màndargay jikko yu rafet la kon loolu mooy ñetteelu li nga xam ne ku nekk ci yow mboolem li nga xam ne moom nga weesu ci sa ginnaaw ak lu mu bon bon bon bon jërul nga koy xalaat lu rafet la yàlla rafetal na ko ñeenteel bi nag mooy iffatun fi tumaa mooy ki nga xam ne dafa fuqale ba noppi fegu maanaam dafa fuqale ba noppi fegu maanaam dangaa bëgg dara li nga bëgg nag nga gis lu ni mel waaye daganu la nga daal di koy bàyyi misaal bëgg nga xaalis waaye xaalis bii nga xam ne moom nga bëgg tey moom ngay wut am koo xam ne daf laa proposé xaalis bu gaaw bu bari waaye xam nga ne lii ñàkk ngor mi ngi ci goree di mi ngi ci wala wor mi ngi ci wala fet mi ngi ci wala fecc wëllëre mi ngi ci yu mel noonu nga xam ne lii loolu lépp mi ngi ci nga daal di muñ xaalis boobu te xaalis boobu mën naa am boo ko doon dajale fukki at doo ko am ñu mën la koo jox ci lu gaaw maanaam kooku ñuy nettali ci senegal soxna Ndeye Khady Ndiaye euh, ci coow loolu yi ñuy tudd bu fekkee ne noonu ñu koy ñu bari di ko waxee dëgg la man nañ see joxe misaal bu dee dëgg la allahu aalam dégg nga te gëm naa ne dëgg la waaye bu dee dëgg la te gëm naa ne dëgg la nañ see joxe misaal ndax nee nañu mbir dafa xew ñu ne ko waxeel nàngam ñu jox la 15 millions mu ne maa bañ ñu ne ko déedéet quinze millions sax dafa tuuti kon waxeel nàngam ñu jox la ñeent fukki millions mu ne déedéet lu tax mu ne déedéet mooy loolu di sone lan la dégg nga li tax mu ne déedéet mooy bu fekkee ne wax na ko dana war ab client dana wax lu dul dëgg dana tax nit dem kaso koo xam ne yeeyoo wutub kaso dégg nga beneen bi mu ngi bàyyi xel juróom bi nga xam ne moo ko yar ci dëggu aha maanaam nit bu amee mbañum rus amu fegu ginnaaw bi nga sóoree yàlla da ngay sóor sax fi nga bokk maanaam fi nga bokk bañ bañ leen a teg gàcca bañ leen a teg gàcca misaal sant bi nga sant rek nga sant njaay xam nga njaay lu bari Sénégal nga ne lu doyee di daal su ma ko defee njóobeen ni dañ dañuy dal ci njaay yi dañuy gën a yem waaw kon njóobeen ni dañuy am lu ñuy wax njaayeen yi nga daan ne ngir ngir wormaal askanu njaayeen rek naa naa si bañ a dugg su ko defee ñu ne ah gaynde njaay waaw gaynde njaay ndax njaay am njaayeen kenn waru koo euh, ginaar kenn santale du ko santale njaay ak ginaar kenn du ko santale njaay waaye bu fekkee ne am njaayeen dafa def loo doy waar njóobeen yi bu boobaa dañ naan xoolal jikkoy njóobeen yi jikkoy njaayeen ni rek jikkoy njaayeen yi moo tax dañoo dañoo dañoo toog ci daara ja euh, benn bis benn waaye daal dikk sol ay daal yu rëy ci jàkka ji xëtër xëtër summiwul daal nii dugg ci jàkka ji dox ba ci koñ ba fekk fa ak góor gu toog mu jox ko loxo jàpp bi mu ko joxee loxo rek góor gi ne ko jóob jóob jóob mu ne ko ah sëñ bi yow gañe nga ma ni foo ma xamee mu ne ko ci suuf gi la ci ci dàll yi te effectivement noonu la demee waaw maanaam nit ki day day def di sóor ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam aw askanam nit ki noonu lu baax it noonu ngay defee ngir cëral leen ngir cëral saw askan ngir cëral saw askan ngir yëkkati leen ngir ngir ngir dox fi nga bokk mu ngir jox kë gëdd ak kem fi nga xam ne moom nga bokk kon fekk daal lu am solo la xaddiis bi xaddiis bu mat a bàyyi xel la ñeent yii nga xam ne ku mu nekk ci yow jëlatul ngay jaaxle ci li la weesu muy matal kóllëre di wax dëgg rafet jikko di fegu donte danga foqale donte dangaa xiif bu la kenn mën a jënd sëñ Abdul Ahad Mbàkke dañoo mas a dikk di ko nettali benn waay wax ba noppi daal ak kooku de daa jaay ngorom rek mu ne da koo amutoon ndax ak gore ku ko am ngor ni mu neexee ku ko am doo ko jaay ndax amul njëg waaw amul njëg waaw misaal amul njëg comme euh, ba tey misaal euh, gone gu jigéen goo xam ne dafa xiif tax mu asaaloo boppam dafa amul ngor dafa gorewut comme yu mel noonu yu mel noonu yu mel noonu kon noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ñu ci Abu Hurayra mat lu mat a bàyyi xel lu mat a xel yonent bi sallallahu alayhi nee na afu an nisaai nnaasi taufu wala ufu an nisaai nnaasi taufu nisaakum wa barru aabaakum tabrukum abnaaukum wa man ataahu axuuhu mutansilan falyaqbil dalika minhu muxiqan kaana aw mubtilan fa in lam yafal lam yarudda ala alxadd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na ngeen fegu bàyyi fi jigéen ni jàmbur yi na ngeen fegu bàyyi fi jigéen ni jàmbur yi fegu bàyyi fi jigéen jaamuru mooy góor ñi takk leen seeni tubéy góor ñi takk leen seeni tubéy lépp loo xam ne doo ko def sa doom ju jigéen bu ko def doom ju jigéen i jàmbur ci lu daganul lépp loo xam ne doo ko def sa rakk ju jigéen bu ko def rakk ju jigéen i jàmbur bu daganul lépp loo xam ne doo ko def sa yaay bu ko def yaayi jàmbur bu daganul mu ne bu ngeen fexee ba fegu ba bàyyi fi jigéeni jàmbur yi leen daganut yàlla moo leen di fegal seeni doom yi jigéen fegal leen seeni waajur fegal leen seeni rakk yu jigéen ba kenn du jàll ci ñoom kon bu leen yàqee yàlla defaral leen seenu njaboot waaye bu ngeen yàqaatee yàlla yàqateel leen seenu njaboot moo tax am xadis ne man zana zuniya bihi walaw kaana fi xitaani daarihi képp ku njaalo ñu fayil ko am njaaloom ci biir këram donte ci miiru këram la maanaam fayante bor la nekkul ne nag képp ku njaalo papaam dafa njaalo woon wala képp ku njaalo magam daa magam woon wala képp ku njaalo non non non non déedéet déedéet ndax nit mën naa bon te bon gi mu bon moom rekk la waaye jotewut ak ay waajuram daara ndax yónnante yàlla luut jabaram daa bonoon yónnante yàlla noox doomam daa bonoon dégg nga firawna mu bon soxnaam dafa baaxoon ba bokk ci waa àjjana aha daraba allahu mathalan lilladina amanu mraata firawna id qalat rabbi bni li indaka baytan waaye wa daraba allahu mathalan lilladina kafaru mraata nuuxin wamraata luut noox ak luut kaanataa taxta abdayni min ibaadina saalixin fa xaanataama soxnas noox dafa banoon soxnas luut dafa bonoon doomu noox dafa banoon waaw doomu noox bon na ba keroog bi baayam ne dugg leen ci gaal gi ngir ngeen bañ a lab dane dane damay yéeg ci sa aawi ilaa jabalin yaasimu ni min al maa am na montagne bu rëy boo xam ne bu ma ci yéegee ndox mi moom mënta dem ba fekk ma fa mu ne ko laa asima al yawma min amrillahi illa man rahima waaye dafa dëgër bopp kon xadis bi ñu doon jàng yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fegu leen danañ dikk ci aayay fegu yi nga xam ne mooy aayay fegu yi alquranul karim su ko defee bu fi xajee ñu dikk ci sëriñ Tuubaa ci boppam li mu ci jàngale nga xam ne indi na fegu ci bépp cër nañ koy fegoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ngeen fegoo bu ngeen fegoo ba du ngeen du ngeen du ngeen séq ak benn jigéenu jàmbur yàlla fegal leen seeni doom yi jigéen ba benn góor du séq ak ñoom loolu nag exemple ñi nekk jullit ñoo moom lool yi waaye ñi nekk jullit moom faaliwuñ faaliwuñ loolu maanaam mooy société bu yàqu da ngay dem a dem ba yow li ngay def doomi jàmbur li ngay séq ak moom yow yu doom worry about sa doom séq koog moom ndax li ngay wax mooy dundam la das her life that's her life julli nag xamul loolu dégg nga moo tax yonent bi sa alayhi wasallam ne feggu leen maanaam bu leen mooy yàlla ci jigéen su ko defee yéen seeni jigéen kenn du mooy yàlla ci ñoom waaye waaye tekkiwul ne képp kuñ mooy yàlla ci jigéenam xëy na dafa moyoon yàlla déedéet ndax ndax ka daan màkkaroo ay góor jigéen dégg nga soxnas yónnante yàlla noox la woon alay yónnante yàlla luutu la woon da daan dajale ay góor jigéen dem na ba yegg ci jëkkëram am ay gan yu góor xamul ne ay malaaka mu bëgg a jël góori bandi dëkk bi indi leen ci kër jëkkëram ngir ñu saay saay ñooñu ci kër xam nga kooku moom euh, jotewuñ dara niki noonu doomi yónnante yàlla noox ci ndox ma yonent bi nee na baax leen ci seeni waajur seeni doom baax ci yéen baax leen ci seeni waajur seeni doom baax ci yéen maanaam nanga bëgg sa doom jëflante ko ak yow loolu yaa koy liggéey waaye yaa ngi koy liggéeyee ca nangay ngay jëflanteeg sa waajur bu dee dangaa nekk koo xam ne booy wax ak sa baay di ko gëdd walla booy wax ak sa yaay di ko gëdd boo amoon ñeent fukki doom it ñëpp danañ la gëdd baaxal ci sa baay baaxal ci say waajur seeni doom baax ci yéen waaye bu fekkee dangaa nekk koo xam dangaa ñàkk kersa lool ci sa wëjur yàlla nattoo la ay doom yu gën a ñàkk kersa gën laa ñàkk suturaal di la toroxal di la torturer di la mettital ba doo bëgg lu dul bàyyi leen fi kon loo lebal sa wëjur rekk say doom dinañ la ko fay kon boo baaxee ci ñoom yàlla xéewalale ay doom yu baax yi lay teral nga yëkkati leen yàlla xéewalale ay doom yu lay yëkkati ni niki noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sa mbokk nag bu dikkee ci yow di sàkku ndimbal dimbale ko même bu fekkee ne daf lay nax même bu fekkee ne daf lay nax dimbale ko même bu fekkee ne daf lay nax bu fekkee ne dimbale nga ko xayrul bu fekkee ne dimbalewoo ko loolu moom xëyrul maanaam bu fekkee ne dimbalewoo ko charrun baaxut dégg nga kon baax leen ci seeni waajur seeni doom baax ci yéen kon mooy safaanu bu ngeen bonee ci seeni waajur seeni doom bon ci yéen sa mbokk bu dee sàkku ndimbal ci yow même bu la dee nax dimbale ko ni ki noonu yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit wax ne ñett ngi nii ñoo xam ne warteef la ci yàlla laa ilaha illallah xaqun ala allah warteef la ci yàlla mu dimbali leen yàlla lan moo koy war yàlla lu koy war doy naa waar de maam ñett ngi nii ñoo xam ne warteef la ci yàlla yàlla mi moom ay jaamam mu dimbali leen yàlla nañ yàlla yàlla nañ bokk ci ñi yàllay dimbali ki si jiitu mooy almujaahidu fi sabilillah kiy jihaad ci yoon yàlla ak bépp xeetu jihaad nag ak bépp xeetu jihaad ak bépp xeetu jihaad ak fépp fu ñu koy defee loolu yàlla ci boppam moom moo taxaw ne kii maa koy dimbale waaw ñun xamuñu jihaad yi xewoon jihaad yi xewoon mooy gàdd jaasi wut ngawar yor say armu xitt xeej xeej bopp fitt daa takku ba dëgër dem xeex yi di jam ñuy ñu lay jamit ngay muñ ngir ne def gi nga koy def danga koy def ci cause yëkkati lislaam loolu mooy jihad bi nga xam ne mooy jihad bi ñu gën a xam waaye nekkul mooy jihad bi gën a rëy waaye yi ñu doon waxtaani yii biñ tàmbalee ba léegi it muy fexe ba noot sa bakkan ba jéng sa bakkan ba fegu ba doo def benn yoon lu dul li nga xam ne mooy li neex yàlla ba àdduna ak li ci biiram amul lu la si mën a jaa jaayloo sa ngor ba di yónnante yàlla yusuf alayhi salaam ni mu fegoo woon nga xam ne yónnante yàlla yusuf gone gu góor la am na kàttan waaye daf ba ba mu ba mu amee occasion mën a mën a mën a def lenn waaye daf lu ko teree def fegu fegu ak misaal mi ñu si joxe ci gone gu jigéen gi léegi nga xam ne dañ koo proposé ñeent fukki million yoo xam ne fenal dong la fenal yow après ñoo lay protéger mu lànk ne duma fen kon loolu dégg nga maanaam jihaad jihaad kon euh, dafa mel ne maa maanaam yàlla moo warlul képp kuy jihaad ci yoon yàlla mu ne dana ko dimbale léegi lu tax ma joxoon misaal bi ma doon dugg léegi mooy jihaad noot sa bakkan sa bakkan maanaam noot sa bakkan yonte bi sallallahu alayhi wasallam gars yi dañoo xeex ba ñëw mu daan ne jóge nañ foo jëme loolu teg ko fii noonu non ah. non teg ko fii bu ko sànni. dégg mu ne ji ji maanaam dañoo xeexi ba ñëw mu ne jóge nañ ci jihaad ju ndaw ji jëm ci jihaad ju mag ji jihaad mag ji mooy toog ci kër yi muy neex di nooy ngay yeewu guddi di la di moytu jëw doo nettali lu dul loo war a nettali doo waxtaane ay caaxaan doo wax waxi caaxaan si jamono joojee nga xam ne moo nekk ca Madina la wax de jihaad ju mag jëla woon kon ana jamonoy tey nga xam ne suñ kër yi ku nekk yaa ngi yor sab téléphone télévision yaa ngi fi ordinateur yaa ngi fi ku nekk mën a am possibilité beru ci sam néeg caaxaan yaa ngi fi nga muñ yooyu yépp mu ne jihaad ji moo gën a rëy jihaad ji mooy jihaad ji gën a rëy kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñett ñi yàlla moo way warloo ne da leen di dimbale beneen bi mooy aji lépp ji nga xam ne dafa lépp te ba muy lépp dafa am yéene fay ko waaw dafa am yéene fay ko waxuñu yaat ma mu dikk nag leb ma 1000 dollars ngir bëgg a daw te riyaama déedéet waaye dafa leb dégg nga waaye leb gi muy leb moom daf koo soxla noo seulement que dafa soxla waaye bu amoon moyen du la leb waaye leb gim lay lebit dafa am intention pour fay la ba noppi bi mu amee intention fay la wóor na ne wér na ne li ko teree fay rek mooy dafa amut kooku yàlla moo koy dimbale ba fayal ko ab borom xaqun ala llaahi xaqun xaqun ala llaahi awnuhum yàlla mooy warloo te bi muy denc soxna dafa bëgg a fegu nekkul ne denc soxna daa xew wala déedéet wala dégg nga dafa am beneen intention waaye dafa denc soxna waaye denc soxna gi mu denc soxna dafa bëgg a fegu kooku yàlla moo koy dimbale wala yastaafifi alladina laa yajiduna nikahan xata yughniyahum llahu min fadli yàlla neen in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadli bu fekkee ne dañoo denc te jamono ba muy denc soxna dañoo ñàkk yàlla rek tax yàlla leen in yakunu fuqaraa bu leen fekkee ñu ñàkk sax te dañoo takk soxna waaye daf fekk amuñ yàlla moo leen di mujj woomalal moo leen di mujj may wërsëg kon ñett ñi xaqun alallaahi dafa war ci yàlla mu dimbali leen mooy aji jihaad ji ak façon jihaad bu man di def maanaam xeex ak mbon jihaad la waaye saxal lu baax foo ko man di saxal rawatina fu mu tumuraanke jihaad la waaye tamit bàyyi say bànneex ak say activité ngir fa ñuy dundalee lu baax nga taxawu ca ña koy dundal jihaad la maanaam ñiy jihaad nga leen di taxaw bañ mën a def seen jihaad loolu jihaad la xam nga yonent bi sallallahu nee na euh, xayrukum man taallama alquraan wa allama sama sëriñ yàlla na ko yàlla fay da daan wax naan yonent bi nee na ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alquraan ba noppi di ko jàngale maanaam ki war a gën ci nit ñi <laughs> war a gën ci nit mën nañ ko mën nañ ko firee noonu mën nañ ko firee waaye ki gën ci nit ñi comme que yonent nee na xayrukum te yonent bi moo ñu gën a dégg arab gën ñoo dégg waxin wutiitu jawaami al kalim su ko bëggee waxee woon noonu ñu ko firee dana ko ne waxee xayrukum man taallama alquran ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran di ko jàngale waaye tamit dëgg nag ki war a gën ci ñun mooy ki jàng alquran di ko jàngale léegi nag jërëjëf léegi nag yoon sama sëriñ danaan wax naan kiy jàngale alquran moo sa jiitu ak ki tax muy jàngale te mooy waajur wi ak ki muy jàngal nga xam ne su ko amutoon du mën a jàngale ak ki leen di dimbale ki leen di dimbale ba ñu mën a jàngale misaal koo xam ne day jàngale amut ay moyen amul taxawaay waaye lay tax mu mën a toog ci am njàngaleem ba du dem misaal boo demee ci daaray Sénégal yi bare bari am na sëñ daar yoo xam ne ñoo toog te la leen tere toog mooy amuñu dépasse misaal nga fexe ba mu amul dépasse loolu jihaad la loolu da bokk ci xayrukum man ta'allama al-Qur'ana waaye juróomeel boobu noonu ki bon nag mooy koo xam ne moom da leen di xeex sax faf benn yoon doomam du dem ci daara jàngalewul tey dimbalewul ñuy jàngale kon al mujaahidu fi sabilillah mhm, yàlla nañu si yàlla boole kon dëgg-dëgg aji fegu fegu aji fegu mooy képp koo xam ne fexe na ba lépp lu yàlla tere mu bàyyi ko ak lu mu man di tere ak fu mu ko man di tere ak tere ba fu mu man di jëm mu bàyyi ko kooku mooy aji fegu ji yonte bi sallallahu alayhi nee na gaaraleef na ma waneef na ma dañ maa wan ñett ñi nga xam ne ñooy jiitu àjjana dañ maa wan ñett ñi nga xam ne ñoo jiitu àjjana àjjana ñett ñi ñoo fay njëkk a dugg borom doole ju maandu maam borom doole ju maandu ab buur wala ab gouverneur wala ab président wala boroom doole sultaan ci ab dëkk mooy ko jiite dëkk ba bu doon jamonoy tey daanaka sultaan mi ngi am ba tey waaye bariwut am na ay benn benn dëkk yi muy am waaye ala kulli xaalin dana firi gouverneur dana firi président njiitu réew wala ab àttekat boo xam ne dafa maandu dëgg rek moo ko ñor dégg nga yi noonu niki noonu koo xam ne day saraxe waaye di rafetal sarax ba day saraxe waaye di rafetal sarax ak koo xam ne <coughs> dafa nooy xol lool dafa mën a yërëm aji néew doole mën a yërëm mbokkam yi di leen dimbale yërëm ay mbokkam di leen dimbale ci lépp lu mu leen tane waaw de lépp lu mu leen tane te kooku nag dëgg-dëgg mooy mbokk moo xam ne day nekk ab jullit nekk ko fegu waaye tamit nekk koo xam ne day man ak njabootam kon yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne ci fegu jikko yu baax la borom bi subhaanahu wa taala wax na ci alquraanu karim ay aay yu am solo audu billahi min ashaytaani rajim muy fukki laa yi nga xam ne wax nañ ci ba tàyyi yonent bi sallallahu alayhi bi mu wàccee ñu wàccandoo ñoom ñaar ca madina dana fukki aaya yii képp ku ko mokkal te di ko jëfe tàbbi àjjana baada audu billahi min alsheytaan irajim qad aflaxa almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun walladina hum can illaxwi mucriduun walladina hum lilzakaati faaciluun walladina hum lifuruujihim xaafiduun illa ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum gayru maluumiin faman ibtaga waraa dalika fa ulaika hum alcaaduun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك noonu la wala dem naa ca kii ba saala saaylan walladina hum ala salaatihim yuxaafiduun ulaika humul waarithun jazakumullah xeyran dafa jaxasoo lool ak laay yi nekk ci sa suratul maarij barakallahu fiikum mhm. euh, yonent bi sala maam alquran dane ñii muy lim texe nañ qad aflaxal muminuun ñii muy lim day waa àjjana bi si njëkk mooy ñi nga xam ne suñuy julli dañuy toroxlu waaw suñuy julli dañuy toroxlu dañuy toroxlu bañ a julli julli euh, sëñ Fall mais maam bi allah akbar allah akbar allah akbar déedéet maam booy julli da naan tekk tey dal jubli penku taxaw taxawaay bu dëgër am na ñoom dañuy taxaw dëgëral benn tànk yolomal benn tànk mel na lu pàtt pàtt benn tànk mu wàcc julli tëxët wala di joowu dangay julli julli goo xam ne ku la gis daanaka day xaw a jàpp ne am néew buñ samp la looy def nga jox ko àqam mu dal jëruñu siy sori waaye daal aha waaye ñi nga xam ne àndi lax wi mooridoon ay caaxaan dañ koy dëddu maanaam bëgguñu dara rëy caaxaan kaf nag ay waaye xuus ci ay caaxaan baaxut bëgg caaxaan lool bëgg fa lool bëgg taaxuraan lool waaw nga xam ne foo dem rek mayee fa tànk ba moytu ay caaxaan waaye tamit ñoom dañuy joxe asaka dañuy joxe asaka ba tey ñi nga xam ne dañoo texe waaye tamit dañuy wattu seeni pëy duñ mooy yàlla góor ñi dañ tekki seeni tubéy wala ñuy focc jigéen joo xam ne daganu leen la ca gën a tuuti nag ba ca la ca gën a rëy dañu séq ak benn jigéen lu dul dañuy bu ñu amee ak kóllëre sàmm sàmmwante maanaam dañuy sàmmwante ak seeni kóllëre ñi nga xam ne yu euh, yuxaafizuun seeni julli dañuy wattuwante ak moom mooy dañuy julli ak continuer dañuy julli ak continuer waaw walla walladina hum ala salawatihim yuxaafidun aha ñi nga xam ne it seeni seede dañ koy dañ koy matal maanaam dañuy dañu maanaam li nga xam ne moom lañuy seede lu ñu seede lu ne day nekk dëgg loolu lañ siy bañ mooy seede ay caaxaan xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa euh, rëbb na ñi nga xam ne dañuy seede euh, ko cinq mille woo am maire neexal ko mille ñu dikk témoin la wutal law kayit léeg-léeg mu nekk certificat mariage léeg-léeg mu nekk kayit juddu léeg-léeg lii léeg-léeg ba ci misaal mi ñu joxe léegi nii rek nga xam ne fenal ma jox la ñeent fukki million la ndem loolee mooy li am fenal ma jox la nàngam nga xam ne léegi nit ñi dem nañ ba dañuy fay nit ñi maanaam man jàpp naa sax léeg-léeg fay nit mu mu agressé kenn rey ko jël bakkanam sax mën naa gën a yomb yenn yenn yi yenn yi ndax ndax ki ñu rey dee na ki ñu rey physiquement dee nekkatu fi te rey nañ ko dee na kenn du si xas kenn waaye bi gën a bon mooy nga nekk fi ñu teg sab der loo xam ne yëgoo tinoo ndeysaan yëgoo tinoo dangaa xëy xëy rek dégg ñuy ngumti ngumti comme lañ defoon sayyidatuna Aïcha maam loolu moom ndax dee na ñu xas ko dañ koo dañ koy xas ci dee ja déedéet waaye nag la gën a metti mooy ñu ne yaa def nangam moom day dafa def dafa def nangam suurtu surtout góor ak jigéen mooy bi gën a metti moom waaw moo tax loolu moom rey ko sax moom moom moo tane moo tane moo tane defe naa bu tane day am ndem tane dana am kon niki fegu ba doo wax waxi caaxaan doo jëf-jëfi caaxaan doo seede seedi caaxaan loolu lépp ci xeeti fegu yi la fegu it ba doo yàlla ci góor ak jigéen mooy fegu bi nga xam ne mooy bi gën a gën a gën a rëy ak lépp loo xam ne day waral fegu it nga dox jëm ca misaal boo toll boo dee am njogomaar di xale bu jigéen di di di moytu di tabarruj di génne saw yaram di génne sabtaar moytu sol lu dang moytu sol lu xat moytu sol lu yaraax moytu it jaxasoo jaxasoo góor ak jigéen yooyu yëpp ci xeetu fegu la yónnante yàlla a ngi nii di ndaw lu rafet toll ci xale yu jigéen yépp ku ko xool sopp ko toll ci xale yu jigéen yépp ku xool sopp ko karaw ga di briller mu nekk ak jàntal am na mu mel moom yónnante yàlla yusuf mu am xale bu jigéen boo xam ne bokk na ci ñi gën a euh, maanaam fresh wala ñi nga xam ne ñoo ñi gën a jekk ndax jekk ak rafet bokkuñu dégg nga ñi gën a man seen bopp jabari buur wala jabari ministre tëj ay bunt yu baree baree bari woo ko ba yegg ak moom ci ruq ne ko mooy li ma bëgg rek mooy nga tëdd sama kaw yonente yàlla yusuf ci ak fegoom ak ragal yàlla ne maada allah wa raawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa xallaqat al abwaaba wa qaalat hiita lak qaala maada allah aha ndaw sa daa di koy sàkku sàkku ki nga xam ne moo nekk ci këram maa ngi muslu ci yàlla ginnaaw bi ma musloo ci yàlla loolu jomb naa koo def mooy li ma doon wax léegi ne yonante bi sallallahu alayhi wa nee na bokk na ci ñi nga xam ne li leen weesu jërul mu leen di naqari mooy kii matal kóllëre yónnante yàlla Yuusuf ne yow bu dul dara sa jëkkër moo ma teral keroog ba ma sama doomu bàyyee sànnee ci euh, teen ba ñu forma di ma jaay mu jënd ma mënoon maa defub jaam moo ma yëkkati kon duma ko ginnaawu mukk te tooñkat kat du texe yónnante yàlla yusuf ak la ca xew ak histoire ba ndaw sa ëpp ko doole santage ko mujj ko tëj kaso ba mu demee ba nga xamee ne mi ngi bëgg génn dafa wax ne benn condition laay teg muy nañ seetal sama der allahu akbar ginnaaw bi mu fa defee mission bi mu fa war a def ba noppi ñu ne ko génnal nga xam dafa waroon daw rek jëli bagaasam ne gars yi bàyyi bàyyi mu ne du ma génn la tant que seetaluñ sama der ndax bëggumaa dem tey ba nekk président wala ma nekk ministre wala dara ñu naan xool ko moo fi defoon nangam ña taxaw woon tuumaal ma nañ taxaw seetal waaw Ousmane Sonko <laughs> ña taxawoon tuumaal ma nañ taxaw seetal ma lu dul loolu duma ci génn innahu rabbi ahsana mathwaay innahu laa yaflixu zaalimun waaw ah. kon qul na xaasha lillah jigéen ñi ne xaasha lillah maa alimna alayhi min suu qaalat imraatu alaziz alaa na xas-xas alxaq ana raawadtuhu an nafsihi wa innahu la min alsaalixiin ndaw si daan ne léegi daal li am bu ngeen bëggee dégg-dëgg man la woon man maa ko provoqué moom maa ko tuumaal ànd ak tooñaa ngi man la woon tuuma ba jeex daal di teggi ko kon loolu màndarga la ci fegu màndarga la ci fegu niki noonu yi ñu jël am ay bayit yu gaaw rek ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa fegu nag bi si jiitu mooy jihaad ak sa bakkan noot sa bakkan mooy moo mooy ndax boo nootul sa bakkan doo fegu ndax mboolem li nga xam ne moom lañ lay sant cëri juróom-ñaar pour nga fekk ko loolu bakkan moo ko contrôlé kon ngir nga mën a fegu ci ci ci bànneex yépp ak bu man di doon mooy da ngay noot sa bakkan ba doo bëgg bànneex minimum bi tax nga mën a fegu mooy minimum bi nga xam ne mënta ñàkk mooy noot sa bakkan waaw misaal koo xam ne dafa bëgg a lekk bëgg lekk ba bu gisee lekk fi du day dem kooku du mën am waraa muy sàmm wante ki nga xam ne dafa bëgg xaalis bëgg xaalis bëgg xaalis ba àndut ak sagoom kooku boo ko joxee xaalis loo ko def loo mu def ko ki nga xam ne yàlla daf ko natt ci bëgg nisaaw bëgg nisaaw bëgg nisaaw ba maara day taali kooku bu nootul bakkanam bu wéeteeg jigéen te am occasion buñ ko ubbilee kanam reetaan ko maa day taali niki noonu niki noonu niki noonu kon noot bakkan mooy li si jiitu noot bakkan nag mooy tax nga mën a am li nga xam ne mooy mooy mooy mooy tax nga mën a contrôler yeneen yi moo tax yonent moo tax Sëriñ Tubaa tuddee ko tasawudu shubbaan maanaam li nga xam ne mooy yóbbalub waxambaane yi yóbbalub waxambaane yi tasawudu shubbaan moo tax mu ne nangeen sàkkoo jëng seeni bakkan yéen waxambaane yi ndax loolu dana leen may ëllëg ngeen mën a am àjjana képp koo xam ne jéngul bakkanam xeex ak bakkanam ëllëg du mën a am ay njariñ mu ne li nga xam ne mooy iraada murit iraada bi ñu wax sànq ci biir waxtaan bi moom mooy contrôler nit ki contrôler boppam ndax iraada dana firi nga contrôler sa bopp waaye dana firi ak murit mu ne pour nga nekk dëgg-dëgg am murit faw dangay bàyyi ay mbiri aada ay mbiri aada yu sew sewaan yooyu ginnaaw bi nga bàyyi lépp loo xam ne dégg nga bi nga bàyyee mbiri aada waaye nag nga wéy ci lépp loo xam ne mooy tax nga mën a jaamu yàlla sa bopp xëy na incha allah kon euh, bu ñuy waxtaanaat ci kàttanu yàlla waxtaan dañ ko jëmale rek ci tasawudu shubbaan comme que waxtaan nañ ci fegu ba yegg ci cëri juróom-ñaari cër bu nekk nan lay fegoo euh, kon dañ ko yemale foofu ba dikkaat jàmm incha allah ñu tàmbalee ko faslun fi lxaddi ci tasawudu shubbaan ala jihaadi nafsi incha allah ñu ndax mu gën a yaatu ñu leeral ko bayit bayit yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla dimbali te kàttanal ñu te sàmm ñu aar ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu